أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ñoo ngi koy bàkk di ko kañ di ko sant di ko sant ci mboolem xéewal yi mu ngi defal moo xam ñu xam moo xam ñu xam jaadu na ci aji gëm yàlla ju ne mu fexe ba jiite ci programme mu dundam xam fa mu jëm mbokk yi xam ngeen ci suñu mbiri àddina yi rek suñu mbiri àddina yi rek xam fa nga jëm daa bokk ci liy dimbali nit ca yegg ca da ngay gis koo xam ne ñu ngi taxawaan rek amul benn fu mu jëm waaye lu ko am mën ko ñu bàyyi nga gis aji gëm yàlla joo xam ne moom programme dundam bii dafa xam fa mu jëm waaye dafa gëm fa mu jëm kii dund si biiram àddina dëgg xam na fa mu jëm gëm na fa mu jëm ba tax kenn mënu koo jëjee kenn mënu koo orienté ci leneen lu wuuteeg lu mu bëgg nekk ba mu yegg mbokk yi aji gëm yàlla dafay xam fa mu jëm waaye gëm fa mu jëm fa mu jëm fan la mooy kër gi nga xam ne moom la yàlla ko saa di waajal ñi gëm yàlla muy kër mbokk yi day waane moos lu nuy tudd baatam aljanna moo xam ci alquran moo xam ci xarit xarit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ci suñuy wax waaye est-ce que dëgg dëgg julit mos naa toog aji gëm yàlla di toog muy xalaat nag léegi ci aljana joojee sax dinaa ci yegg mbokk aljana joojee nan la mel dëgg la dégg nga ay tegtal yu bari ci ni mu mel waaye nag est-ce que xiir ci dëgg-dëgg am nga ko pour dugg ci aljana yooyu noonu ñu mel noonu moom la ñu tuddee al mustaqimuna ila al janna mooy ñi nga xam ni seeni yut dañuy mat mooy ñi nga xam ni seeni yaram dafay sàkkat seeni xol dafay tiit ndax rek dañu bëgg dugg aljana inna alladina hum min xashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إن الذين كانوا قبل من خشية ربهم غاية دين غاية الباب bëgg bi ñu bëgg aljanna ci bi ñu ci diggante seen borom ndax da leen jaar wala mu xoox leen ëllëg ndeysaan ñu seen xorew ay xaw lan la kii nag gaa yooyu di aayaati rabbihim ci aay yi jàng ci alquran lay yëpp dañ koo gëm wala lii nag gaa yoon rabbihim seen borom yàlla abadan ay shirikoon duñ ma sa bokkaal ak yàlla wala dina gaa yooyu yutuuna ma ataw yéen yàlla dégg dañ cee joxe wa qulubuhum wajila ci seen xol yi gërëm gërëm ak jiit lan la ñuy jiit annahum ila rabbihim rajiun gis dana ñëw ma dee su ma dee lan laay dajee ci kaas sama borom suñu borom ne ulaayika ñii na ñii yusaariuuna fil xayraat ñii la ñuy xëccoo dëgg dëgg dëgg dëgg ci yàlla ba mu kaa saadiqun moo tax dañuy jël lan mbokk yi aljanna yéen ci yàlla bi dafa wax ñetti saxaaba loo xam ne la nga war a wuti aljana di ko wut si ci yow mu ne inna aljannata la tashtaaqu ila salaatatin yéen ci yàlla nee na aljana daal nam mu ñett nit bëgg ñu yegg ci fa moom salaam ah ak amnaa ak alim la bi talib mu ne aljana dafa nam mu ñett nit allahu akbar te yow aji gëm yàlla bi yaa war a nam mu aljana bokk jëm si mbokk yi ndax yaa ngi toog benn bés ngay xalaat boo faatu woon rek ba yàlla subhanahu wa taala dugal ma aljanna allahu akbar wallahi sawfa yazulu anka kullu taabi dunia lu la mën a jaar ci àddina ci feebar ci naqar ci aw jiis ku la mës a tëdd ku la mës a asale ñàkk xiif laa ilaha illa allah saxaaba yi bokkoon ci seen meloon dundin mooy dañ doon tàggat ak seen njaboot ci bëgg aljanna ci bëgg aljanna tàggat seen njaboot ci xeram aljanna bëgg aljanna te aljanna ji rëy muy kumpa boo xam ne xamul gisul waaye rek yàlla taala wax nañu gëm suñu borom ne inna lil muttaqina mafaza xaar ñu góorgóorlu ba ragal yàlla ci kaw suuf ñoom day am leen ak texe xadaaiqa wa anaaba yàlla mu dafay dugal ci ay jardin ci ay tool yu bëri yu naat yu nëtëb wa anaaban ay xeeti fir yi lool yaakaar na wa kawaaciba atraaba yàlla mu may fa ay soxla yoo xam ne xale yi tuuti la ñu doon wa kasan dihaaqa kaas bu fees jël ak sàngara sàngara boo xam da ngay naan ci doomaan ci te doo am bàkkaar laa yasmacuuna fiiha lagwan wala kizdaaba yàlla mu ne dama lay sori lu la naqari ba luy tànqal ngay nopp sax allahu akbar da ca duur luy tànqal ngay nopp laa yasmacuuna fiiha yàlla du la bàyyi mukk mukk mukk ba ngay dégg bokk ci ajara yoo xam ne lagwan waxi mbóotóor la wala kizdaaban wala ay dama lay naxar dama doon tiital ak yooyu déedéet suñu borom ñu jazaa min rabbik lii de fay la bu bàyyi ko sa borom ataan nii may boo xam ne dalaa may ba yëg nga yëg yàlla dalaa baax a bay xisaaba allahu akbar wa jazaahum bima sabaru yàlla muy tey fay naa leen ci li ngeen doon muñ jannatan aljana joo xam ne ñeexi boobu fokk tax romb la wa xariiran suwaa ngay sol doo sol wax doo sol xartu doo sol nage xariir suwa wa xullu yàlla mu ne ma takkal leen asaaya ay lam min sët ko min sët ko lam yoo xam ne or la allahu akbar foo sol lu ñu di reex reex góor ak jigéen wa taqaahum rabbuhum sharaban tahura yàlla mu ne ma nandal leen sama loxol bopp yi man yàlla ndox mu laa loo xam ne boo demanee laa tam maku baaxdootu abadan dootoo maaj suñu borom ne inna hada lii ngeen gis kaana lakum jazaan moom laa leen di fayee wa kaana saayukum maskuuran xam leen ni yàlla kontaan na ci yéen وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا يلا مني ñu àttee ba noppi nag léegi dafa dëgg sunu xadim aajara rek ñu jiital xamoon doon dem aljana su ma ñu nekk mbooloo saa di daal jaabuha ñu tenkam tenkam ñu tenkam tenkam bay ci buntu aljana mbokk yi fekk aljana ni di grillé ak a leer ay vitrine la ko yàlla def subhanahu wa taala da ngay toog ci ci biti di seen na ca biir aljana ñoo xam ni subhana almalik al aala ëttëb yàlla ba subhanahu wa taala xum dafay xeeñ gët gët koo xam ni kenn mosul gis parfum bu leen noonu damaa dama di xaar xam la jëm xatta ida jauha ñu ngi ci ba buntu àjjana pour wax la ñu rek kenn gisul la sa kër boo demee ci sawara yàlla mu ni futihat abwaabuha dañ ko tijji ndax jékki la jékki rek fekk na tijji la bu ñu xàmbal la ci biir àjjana nag mu yàlla war nañu xéewal bi dafa mat say jaari kër la sindiku la ba dëkk mu ne wax wax futihat abwaabu li daal di lay ubbi kon da ci jiituwul seen dëkk ba wa qaala lahum xadratuha kay daal di aljana yi mu yëg waa salaamun alaykum yéen gam yan la yan sàddi seen kaw yéen yéen waa aljana alhamdulilah lima sabartum salaamun aleykum yéen day day ngeen am jàmm tëbtum yéen day kañ ngeen tëbtum affaire baax na oh est ce que xam ngeen fi ngeen jëm fan la allahu akbar ndax aljanna aljanna beneen affaire la moom yeneen affaire doomu aadama su xamul dëgg dëgg dëgg dëgg ma aaddahu llahu lahu fi ljanna wallahi sawfa yatruk kulla malazati dunya wa anwaaha su xamoon àjjana ni mel moo moo ne ñu xéewali àddina yi puure bi ñàkk solo yi nga xam ne ma hadihi daaru illa lil fana xuliqat ma hadihi daaru illa daaru lil maari kër goo xam ne dafay jeex lépp lu fi mag mag law day màgge lu rafet ñaaw lu bees rab ka an la maa hiya fi taarifiha xululun dafa mel ni bu ñu lay melal àddina comme jins lan lay nekk صفا صفاؤها كدر راحتها سعد وجدانها عدم ذلك ليك تقبل بينك قبل من الموت سلام عليكم وادخلوها تجربها وبين بين خالد الذي تقبلها وقالوا الحمد لله لا يجي عدمه الله اكبر kër goo xam ne dañ koo dañ koo defal ba muy yaa yaa ngi ci xeeti firi yaa ngi rek rek la xaar dinaan la kaay wécc ma kaay wécc ma koy nag dakkal tuuti nit ba boppam fekk si la wa daaniyatan alayhim zilaaluha wa zullila xutuuf xutuufuha taslila wa daaniyatan alayhim firi yi day jëlee ba sa kaw boppam maanaam man damaa taayee def nii sax ñu ne wasul li leen ñu xool li la wasul li leen wa daaniyatan alayhim zilaala wa zullilat qutuufuha tasdiila yàlla xoolil la ko allahu akbar kër goo xam ni subhaana rabbina al aala loo xalaat maa laa aynu raat xam si yàlla dina nii kër goo xam ni loo xalaat am na xanaa ay ñu baal lu mosul gis lu rafetee noonu ndax bu ko gisee day yàq wala udunun samiat nopp mosul dégg lu mel nii di nekk àjjana wala xatara ala qalbi bashar loo mën a xalaat mën a xalaat mënoo xalaat ma xalaat la nekk àjjana ak waaye ni bu tëdd ba guddi mbokk yi xelam dem ci àjjana bu tëddee kañ lay doon ba sonn kon lool si daay bi kan ni ko xool lay doon mu si jàppal xelam dem sa àddal mu xalaat ni kër ji boo xam ne boo tëddee aw sonn ay aroik mu ngi tëdd ci ay lal yoo xam ne nag est-ce que am na benn melokaan bu ko mën a jox pour nga comprendre dañuy naa fiiha nekk na ci àjjana ja suur ay lal yoo xam ne man kuwa dafa kawe lan boo xam ne moom dañuy def laan la nekk ab lal la kenn kom si ko fa aswaarun mawdua façon fopp yoo xam ne da ngay dikk ba tiim ko naan lii lan la modèle bi ko yàlla liggéeyee subhanahu wa taala bët musul koo teg bët musul koo teg wana maa yëpp mat fuufa ndeysaan façon jegenaay yoo xam ne duñ jeganantee yow boo yeggee ah loo xam loo xam yow lii ñu wax daal lan la nekk loolu simple jegenaay la rek pour nga teg ci sa lépp wa daraabi yu ma ba tuur sa ay xeetu moket ay sab yoo xam ne allahu akbar yafuuqu minhu raihatu misk su doon moket yi ci la parfum nit ki di jullee di gëstal sa kër suñu borom mu ngi xaaral daw leen njëkkante leen ila magfiratin min rabbi daw leen ala inna sinaata allahi gaaliya maa su ñu yàlla dafa seer ni aljanna ku la ko yombal bëgg na la koo xam bañ wa jannatin ard aljanna joo xam ne arduha yaatuwaay ba asamawaat wal ard dafa yaatu ba mel ni asamaan ak suuf وعزت للذين آمنوا بالله ورسوله من جميع الله جميع الشيء يوم القيامة ذلك من فضل الله يؤتي من يشاء يلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ولقد يدوان يوم نصيحة سورة ما أصحاب اليمين يوجد بعض الأمر في سبيل المحظور yàlla mu xeeti jéem si jéem xeeti garab yi si jéem yoo xam ne buñ la waxul si jéem la doo ko xam te dëgg la tax wax buur ñuy seen bi dégg daal wa talaxel manduur ay banaan yoo xam ni da nga ma xool nga naan lii lan la ñu ne la banaan la nga mos fekk ñu indi beneen façon nga ne lii lan la ñu ne moo ne banaan la de nga mos fekk nga indi beneen aar ñu xamee nag banaan ñu ne beneen mosal dañoo ñuroo rek waaye bokkuñu كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ee non bii moom doyal naa bii moom ñëw sax su borom mu ni déedéet ba utum bii di mun a saa bi dañoo ñëw rek dama seet wala mu fii ha azwaaju mu ko xaar ay soxla yu laaw waxum fii ha xaali mu la nekk sax laa wa sulli magduud prépar boo xam ne dafa maate garab suñu taaye ba mu rafet amul subaa jot amul ngoon a jot yéen li yor musuwaar ko kooku ko ndax ndax la yow la ila samtan wala zamharira wax amu ko yëri bu la neex kolom parce que sedd amu ko wala zamharira sedd buy tax ñu sëri jege amu wamaain masbuub ndox moo xam ni mu leer ni mu safe suukar dañ koy lekk da ngay naan te ndox ma muy gën a nay saw yaram وفاكهة كثيرة كلي مريضون ليس في أجل بلا ولا كان بس قرارة من كل جنس مرمر من كل جنس بنان من كل جنس وفاكهة كثيرة لتقر النور بلده لا مقطوعة أو الجد بلده ولا ممنوعة يد ربهاي وفرس مرفوعة لم يكرر وكثير الصحابة يقالون الله لم يسبق لكي تكمل كتير ku tàqali ko sagoom di nga xam ne tabbi aljanna sahaabal xaram yaa dama yent bi sama doomi tàndarma yi ma jiin di ko nekk man est ce que su ma dee ci xare bi dinaa def aljanna yent bi ni ko aw waaw ko kuy dee dem aljanna mu ne ni ko kuur sànni ani ba rim baxin yent ma xamalaka ala qawli ba baxin baxin baxin baxin mooy lan mais dama xam ne su ma fi naree nekk di lekk sama juróom-ñaari doomi tàndarma yi ba mu kàddeel ma aljanna kon ma xam ne kuy ñàkk fay dama la gën a ñàkk fay te duñ ci ay minute ñu tomba parce que xam ngeen tomba ku nekk la montagne la bu ñu yéegal ca kaw nga war a daanu mu wóor la ni soo daanoo kaw lool dana dam loolu ne amul ci xàq booy daanu lool di dam booy faw dinaa daanee sama bopp lu tax sama baax la loo suudam bu loo suudam ne après kon ñoom duñu xalaat dam ñuy lool wax waaye dañuy xalaat lan moo ne ci ginnaaw loo suudam mooy dugg àljanna moo tax mbokk yi ñoom ñu mënoon lan man yow dañuy ci lii kay mënu ko lii maa ma nangam nangam déedéet loolu dañuy xool après après est ce que mooy soxna tey tey tey tey tey su ma fajee ñu ne xëy na amul jiw ñu lay dox waa kan parce que lu mën a am ci kaw suuf aljanna ko gënal lu mën a am ci kaw suuf aljanna ko gënal moo tax kenn ku ci nekk ci ñoom ren lu mu yaakaar lu mu yaakaar yi bu ko defee xamee ci ajana dana ko def kun lañu ala amal yi dundee ni dana dundee mu ne fikkal ma loo xam ne su ma ko defee du ko aljanna yéen si yàlla dañuy xam ne juróom ñaar fukki nit yoo xam ne dañuy juróom ñaar fukki junni ñu dugg aljanna ci ibn al xisaab ndeysaan ku benn saxaawa bi ndeysaan yéen sunu bi ko fu tëru wax ko bitaa ko muy muy occasion muy yéen si yàlla bi ñaanal yàlla ko ci ne ko incha allah toobal da ngay bokk benn laaj bi ñu ko man nag mu ne ko sabaxaka bi kaa okaasa yow kat da ngaa yéex okaasa ji gën a allahu akbar abubakar omar usman kibaaru saxaaba taabiuun yi koo ci xool dundam rek da ngeen ci seen lépp mënoon koo bàyyi ngeen na def aljanna wallahi mbokk yi yow ñu doon am ay xeeti xéewal ci kaw suuf ak ci walaakaana ba tey day dañ duggee bànne suufaleen féete suuf féete leen kaw féete leen day war a sànne ma am na an kamaalu sa ala bi ma jëriñ tus rëdaka an sa sultaan nguur gi dem na laysa lan moo def wa baqiya illa al amal ay jëf jëf yooyu nga xam ne moom ko doon aljan moo mbokk yi daa dina lekk ñu yëg ci ruq xalaat bu baax est ce que man àjjana ji dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ni dafa jafe lool li ku cher lañ koy jëlee est ce que maa ngi def ay jéego bu jënd ko wallahi boo góorgóorlu ba yàlla may la aljanna la xam fuzta fawzan azima suñu borom wax wa fi daari inna hada lii لهو الفوز العظيم ليس غير ربي لمثل هذا لمن لي زايد بدك اجر فليعمل العاملون كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء هذه هي خليل وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم سخيرا من الصحابه سالتنا سخيرا من الصحابه صفات الجنه يرجعنا بأي يوم يوم يوم تقريب راه صحابي كويس في القلب جيل كله تجيب لما يحدث وما يقال من لم تتقل من يلا من يقال من لم تتقل الجنة وجهة مكانهم يلا صحابي دين سبيل قول خارج لمن أي جد لمن جد لمن الله أكبر فما تسمى الجهاد mooy ginnaaw bu ñu ànd suñu loxo ñaan yàlla waarat kan xatul mu waar ni affaire leen ci aljanna allahu akbar da ngay gis koo xam ne bu ñu waxee ba noppi ah subhanallah ren allahumma la turji ani ila ahli abadan yàlla yàlla bu ma delluwaat sama kër ñaanu ma ko yàlla wallahi la abdi ñu jéem xare ba ñëw di jooy xam nga lu ma jooy lu tax ay moroom des ko woon gis ko mu xam ne dama nar a fexee Masamba ak Ndeye ñoom ñaar ñoo àndoon ñoo doon dafa la suñu projet nangam nangam nangam te ñii ñii gën a xale Mamad ak Mamad dama nar a alku Xaalid bin Walid ndeysaan dafa ñaan yàlla dee ci xare ba tey yàlla may ko te malgré que moom rek war a mën a dee ci xare liñ koy sang amul fooy laal lu dul taw taw jaati daal lu dul kal la woon pour bu dëgër bi mu dëgee ci kaw wala sukuraat mu dégg ay mag ñi nga xam jëm sa xare ba mu dugg wala su la jóg fekk ñu sukuraat mu bëri bëri jóg ñuy daan c'est-à-dire ñu laa naama aayuna jubana sàkkat bi dul dem xare boo tëddee yàlla boo nee la waaye ndax man xaalis musuma bëgg a dee ci kaw la góor bu amee góor bu am fulla bi dee ci kaw la waaye loolu yaa ngi doog a mu sukuraat ci kaw la ba jëlee dee yu baale na xar ndax bëgg loo dee ci kaw la dafa bëgg a dee ci jihaad fi sabilillah yéen yàlla dina ne xëy jaay ci sa xaral boo faatoo fii boo faatoo fii saa bi saa bu ko yéen si demee yow ñu ko xam ngay demee fii ndax yéen si daw daw daw jëlee sa xaral bi maanaam kii demal ci sa xaral jeex su ko faatoo ñu seet nañ waaye lim jël boo dee lim jël boo dee lim jël saxaaba yi demal ne ba xam ne lim saa bu ko defee rek mooy doo dellu si Abdoulaye dina wax di ko yéen si ne boo dee lim jël allahu akbar Zayd moo jiite woon xare bi ñu toppit baat ba Abdoulaye Ba xaw a koy topp xoolal mbokk yi aljanna bu fekkee sa xol bi leer ma abdoulaye da nga xale ko sa xol danaa koy wat Abdoulaye Ba waxee mu ne ba koy jël ci man ba ma ko jëlee ko jaara jéeg fii ñëw arrière iman ba yuut arrière yàgg mu ne subhanallah ku ko waaye yàlla xam na rawaax yow sa këram yàlla de loo daw dee jërëjëf dégg nga ba xamu ni dee moom ñaar rek man la yàqul bi say ci maata bi ngay yéegi ku deewul ci jaati yow ci leneen yow xaar da ngay bëgg a dee dañuy faxale drapeau bi dee ci xaare ba ñu ko faate ginnaaw bi kan xale bu doon ci drapeau kon daal yow ko doon mooy mbokk yi ah aljanna aljanna jar naa liggéeyal de kon nag fi yàlla defal taw fi ba nga faat ñu takk la sang la sang la suul la yàlla na la yaa ayyatuha nafsul mutmainna keroog keroog bu la yàlla mu difeewul dafay sa xol dafay fas ndax kontaan parce que yenn tiit yi doomu aadama àttanu ko moo tax ku gëmul yàlla xal yenn kontaan yi aji gëm yàlla àttanu ko moo tax muy xëm parce que yàlla ba mu demaat na nga mel neen inna ansha'nahunna inshaa'an lay jigéen bu dee góor ñi yàlla bu ñu yàlla jox leen di bind ala surati xalqi aadam xoolubu si suuna zira juróom benn fukki xasat la doon mel ni aadam nga xam ne deuxième étage da ngay taxaw ñu di ko laal sauf que loolu xam ci ko doon taxaw si dara mbokk yi yéen si day sallallahu alayhi wa sallam bokkoon si ay ñaanam lu bari di ñaan aljanna allahumma inna nasaluka aljanna wa naudu bika min annar yéen yàlla mu ne kuy ñaan na nga ñaan alfirdawsul aala aljanna bi xarit am na benn saxaaba ndeysaan dafa dafa dafa dafa dañoo demoon Badar balaa xeet day tàmbali rek mu dem ci seen bay naan diin la kaalaam gaa yi seen ko xàmmee wuñ ko kenn kaa defee defe ni yéefar la mu accee ni ko fàpp ci bul bi mu daanu nekk ci ab jullit laa rek waaw muy xaalis saxaaba yi da wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu sànni ko sànni ko yonente bi jullee ko suul bi ñu gisee yaay ji ñëw ñu ne ko sa bopp ji faatu na mu ne alhamdulillah yàlla defee sama doom ji faatu ci xare waa ji nekk ku mel ni man la mun ta leeral mu ne ko yee faatuwul sa xare ba de dañ kaa rey avant xare baa sàmbali mu daal di yóbbu daal di ñëw si yéen sa sàmm ni ko xaari sa laa bëgg nga wax ma fu mu neex wala islam xaramal bul jooy di yuuxu yooyu yi ñuy def yéen ci biir fekk mu ne ko waxal su dee aajara dem ma sant yàlla su dee demul aajara dinaa wan yàlla li ma man man la di yuuxoo sa salan sa nañee guddi say yéen dëkk yooyu yéen ci biir ko way ah donc kon kare ñeen na foppal ci wàll inna naka xaarikata la fil firdawsi laata sa doom xaarika yàlla yéegal na ko ca firdawsi yi kawe ci àjjana am na benn xaalifa insan dafa bëggoon aljanna waaye li ko doon jaare ci teral ngay dundal yaaye yonent bi dugg aljanna ci ci baat bu neex bu jàng alquran mu ni jibril koo kan la mu ni ko kooku day xaarif dafa la sab saxaaba la mu ni ko ki nu mu def fii mu ne ko diggante mag yaayam la mu ni zaakal birru bil um yéen si ndekk ci baax yi day mën naa def nit ñi mbokk yi ñu ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu aljanna yàlla yàlla may ñu aljanna jëpp gën a kàrbu ci kaw yàlla yàlla musal ñu ci mbugalam te wallahi bu yéen ko yàlla mën na ko ko may parce que yàlla ko dara ko jëriñoo déedéet moom moo koy jëriñoo amul ku benn njëriñ yàlla dugal ma aljanna wàññi ko dara laal ko du ko doy dara ku bëgg ku la yërëm da ngay yërëm sëñ ku bëgg ku la may da ngay ñaan ah ku bëgg ku la xettil da ngay xettili ko kon ñu ngi xettili ko ci yàlla ñaan yàlla subhanahu wa taala gënnaak xéewalam waaye muslim ci moom ci sawara ci mbugalam yàlla yàlla boolu ñu xam tawfiq fi dunya wal axira